mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu sunu borom ak kàttanam di sant yàlla bu baax di nuyu waa solution TV solution info TV ak ñi abone ak ñi seetaan ak ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax euh, ci ànd bi ñu ànd ak ñun di rafetlu liggéey bi Sa Ndiogou son yi bu El Hadj Modou Diouf euh, Top euh, Fallou Assane Mbesere Aïcha. suka yi ak ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen euh, ziar di am mbégte nag euh, teewaat fi fa yéene ñëw rek ci actualité bi actualité bi ak euh, li ko lëmbee ñu ciy waxtaanee rek mbir moo xam ne dañ ko tuddee ay tuuma wala mu doon ay fen yoo xam ne dañ ko ràbb ba mu mat fas yéene ko teg ci kaw nit di usmaan Sonko. ci fukki milliards ak ñaar yu ne dafa jóge Qatar ñëw ci moom ngir ay contrat pétrolier yoo xam ne tey jii moom dafa ne bu faloo da ko dikk euh, ab société pétrolière boo xam ne dañuy renégocier les ngir société boobu mën ci gis boppam loolu nag benn député mooy ki ko wax député bi nag ñu ne Matar jóob la tudd xam ne wax bu ne wax la dañuy laaj kan moo wax wax ji maanaam kan moo wax wax ji ak ki wax wax ji moom mooy kan looloo tax bi mu waxee wax ji ñu bari ci réew mi joxuñu yitte wax ji joxuñu ko fulla joxuñu ko fayda joxuñu ko benn dayo ndax ki wax wax ji la ndaxte waa ji moo fi waxoon Antoine ni ñiy lappi-lappi ci réew mi nan leen yeew ba na ngodd dugal ci géej gi jën yi lekk leen bu ko keneen waxoon heure bi mi ngi ci kaso bi ndaxte bari na ñi nekk ci kaso bi bokk ci Pastef ay waxaleen fa dugal waaye waxuñu wax ju rëyee noonu te jamono jam koy wax mooy jamono Fulbert Sambou ak Kile di Didier Badji doonoon ay takk der yoo xam ne ba tey jii ñu ngi laaj moom mu profité ci loolu jàkkaarloog Antoine Diome ministre de l'intérieur na ko foofu lan lay xaar ak yeneen yoo xam ne ci assemblée yàgg na taxaw di ko wax maanaam heure bu taxawee ci ay kàddoom li ci ëpp ay njombe la tey jii bu doon ni crédibilité lañu wër mun na am moom bu buñ ko gisee dañ koy romb kon wax ji ci ki mu juge ak boo delloo ci ginnaaw ci assemblée la mu wax yépp mënuñu ci dellusiwaat ndax moom intéressé wuñu waaye bu dee ni dafa yëkkati ab wax wax ji réew mi yépp jàppee ko ay naxasa xandang wala ak waxu xutumba goo xam ne li muy wax xamu ci dara te man dama gëm ni li mu doon wax xamu ci dara député bii di mataar Diop tey jii boo ko laajoon lan mooy kanaar enchaîné journal français boobu moom xamu ko mbiri contrat wu pétrole xamu ci dara xamu ci dara lii nag bu ko waxee du ñu bett ndaxte am na jamono ci atum 2019 journal l'Observateur génnoon fi ni campagne Ousmane Sonko tout la tout moo koy financé ñu dem ba ci biir nag te loolu du dëgg ba journal bi sax nangu ni la mu bindoon du dëgg léegi nag li tubaab naan ça c'est le naturel revient toujours au galo maanaam ngembal saay-saay day yolom waaye du tas maanaam Macky ñi mu ko seqal ay bukki timis lan boo leen dàqee ba mu dem maanaam Sonko ñi mu ko séqal ay bukki timis la maanaam boo leen dàqee ba ñu dem bu nalaw waxtu wu ne dinañ ñëwaat jamono jël observateur génnoon ci atum deux mille dix-neuf ci waajal élection présidentielle jamono jooju leen génnaat indiwaat lu mel noonu tegaat maanaam li dàq tuuma yële ci l'observateur ca tuulay ëwal te du woon dëgg moo dàq tuuma yi ndaxte bu doon député bu ñu naw moo wax loolu wala mu doon ko crédit wala mu doon koo xam ne sax am nañu ko bàyyi xel tuuti ci réew mi sax di nga ne wala ay rapport corps de contrôle def seen enquête parce que mbiri xaalis ak transfert d'argent wala transfert de devises mais dafa am ba kuréel gi ñuy wax CENTIF CENTIF ab kuréel la goo xam ne tey jii li jëm ci wàllu blanchiment d'argent blanchiment de capitaux yooyu moom moo ko yor ab police la boo xam ne yooyu rek lay gëstu kon Sénégal bu doon ni loolu am na mais war nañ xoolaat ñun sax suñu réew est-ce que ñun am nañ sécurité ñun ñun ba alal ak fi jamono bi toll ci financement wu terrorisme alal mun a jógee kataar dugg ci réew mi ba tey jii ñu koy doogu yëg looloo tax ay waxam dañ koy dàq teg ci dañ ka awoo ci RFM di ko laaj mais waa ji ba léegi waxul lu aj ngooñ wala lu nit mën a dóoree doomam moom Matar Diop mii ana preuve yi mu ne maa ak moom bu bu jotee dinaa ko génnee te dama gëm ni ba ba muy leer waa ji bu dee ay preuve fan la koy jële parce que waa ji xamul dara man loolu laa jàpp dama jàpp ni waa ji même bu doon ni sa gouvernement bi dañuy tëgg dara contre Sonko du waa ji la nga koy jox boo dee gëstu assemblée di xool personnalité nit ki ak yooyu parce que mbir boo bëggee mu crédible daa am loxo yoo koy jaarale bi waa ji waxee wax ji ay ay fan. sénégalais yëpp jàppee wax ji ngelaw loo xam ne kenn xamul mu doon ndax yàgg nañ fi tuumaal Ousmane Sonko lépp mujjee ci ay kàcc mbiri Adji Sarr mbiri leneen ak leneen mbiri loo fi tudd lu ne tuddal noonu ko ko yooyu yëpp bu ñëwee fa muy mujj ñun ñëpp xam nañ ko léegi ma jambal jaañ génn nag na leen leen di dem ma jambal parce que li li may wax mooy ma jambal buñ ko dee liir rek sonk moo tax. waaw ah, mais du ba bariwul ñu mu intéressé ci wax ci jëf wala li mu fi waxoon ci Touba sëñ bi ba mu ko waxee ca suba sa ca guddi ga waa Touba na xëy weddi ko dindi wax ji ay Amadou Ba sëñ bee ko lii lii lii ñu dindi wax ji musul wax wax joo xam ne tey jii day taxaw euh, waxam montagne glace la bu xëyee wax ko bu naaj bi tàngee mu sey loolu ñu gis ko ci Madiambal mais Madiambal li mu wax moo neex non maa ngi interpellé forum civil ñoom Alioune Tine xanaa duñ ci wax lu ci wax yéen a tuumaal nit indi leen preuve yi teg foofu nag la Alioune Tine defee erreur mooy ay pièges yu ma jàmbal jaañ di nga lii Birahim Seck bu forum civil tontu na ko comme yow yaay journaliste defal say investigation te yaa ma gën a jege pale bi lijjanti loolu ba mu leer mais loolu Alioune Tine waroon am fu lay tontu comme ma jàmbal jaañ mii xam ne dañuy tappale mais Alioune tun deful loolu ñëw naan nañ ib ay enquête ubul lii di nga yooyu buñ ci daanu di nga ci mbiri Adji Sarr dafa am benn wax bu am solo bu gars yi doon wax bi mbir mi doog a juddu tool bari trop ñu ne non les organisations féminines ana waa rajo Siggil Jigéen ana ñiy aar jigéen ñi yaa ngi gis mais ñu am mat gu toll ni maanu ci mbir mi mais imaginel organisation féminine yi nekk ci réew mi fii ay rajo sigil jigéen ay faatu saw saar ay ñoom Amsatou Sow Sidibé ay ñooñu génnoon waxoon ci mbiri Adji Sarr heure bi heure bi yàqu nan mais nguur gi poussé na leen ba sonn pour ñu wax ci mooy wax leen ci mbir mi ndaxte jigéen la ñu toroxal jigéen la ñu laal fii jigéen la ñu menacé jigéen la ñu lii mujjul fenn bu ci waxoon ñoom fu ñu jëm Alioune di nga na ñooñu maandoo woon ci mbiri Adji Sarr ba tey ji ñu am ndam réew mi da nga fi tabax loo xam ne ma jambal bu mu ko toj ay waxi ma jambal ak ñu mu àndal bu mu tàngaay ay enquête ñoom ñi di wax ñoom bu ñu bëggee nan enquête ñii bu ñu xamaloon Ousmane Sonko loo xam ne tey jii mun na tukkil réew du ñu yónni ab xale bu jigéen ab gendarme naan ko jiñ ko sàcc ay sàcc portable ñu ànd dëgg. yii yëpp ñuy wax naan ay ay terroriste atteinte à la sécurité de l'État mais li nguur gi bu ci yoroon ay preuve ay documents yu leer yu mën a firndeel sénégalais yi bu boobaa doom ndax na yem ma jàmbal xëy wax Yérim sekk dem toog Yérim émission yu mës a def ci 7TV da ngay seetlu politiquement Yérim mun nga ko respecté ci analyse am parce que min na réew mi te xam na réew mi mais yirim ba ba muy egg ci mbir yi lii di euh, maanaam coowal yi douze milliards yi ñuy wax xawma ay vingt million de dollars je ne sais plus yirim waxu fa dara dara mais bi mu eggee ci vingt milliards yi ñu ràccal ko nag ràccal mu toog douze milliards yi lu ne mu wax ko te wax ji yëpp mooy Yérim day wax di daw res du dugg ci yuqu wax ji la Matar Diop wax la Matar Diop wax parce que ñu ngi sóoraale ay diffamation wala yenn parce que yorul ay preuve parce que li nu waxoon Sonko ci mbir Mame Mbaye na ko yaa wax lii indil preuve ya loolu lañu doon daw lool daal lépp da ko dàq ci député bi te député bi ab immunité lay jël ci kawam mais député bi boo xoolee ni Yérim xuusee ci mbir mi Yérim ni mu xuusee Matar Diop xuusee wu ko parce que Matar Diop wax na mais ay fan nit ñi bàyyiwuñ ci xel ñu ne non bii doxul de il faut que ma jàmbal bind interpellé léegi ñu bëggoon ñoom Alioune Tine ak ñoom Birahim Seck wax ci pour léegi sénégalais yi muñ ci jot maanaam danoo bëggoon jël Alioune Tine wala ay Birahim Seck def leen benn genre lantinoor boo xam ne ñooy jàllale mbir mi. ñoom ñoo wax seen i wax kay nan indi firnde yi rek poser le débat mais ñoom yëg nañ ni amatuñu crédibilité ci kanamu nit ñi ñu ne noonu nan utiliser la société civile léegi ji nga bi Matar Diop waxee ma ja ma bind kii di Cheikh Yérim dem toog Cheikh naan ay kanaar enchaîné kanaar lii wax mais li ñu wax ci canard enchaîné sax du dëgg parce que canard enchaîné ci gëstu yu ñu def moom dafa ne ab diplomate marocain. moo wax wàcc te waxuñu ban diplomate la ab diplomate marocain moo wax mais ban diplomate la diplomate marocain mooy kan dafa am parole d'évangile ba mun a wax ci loo xam ne li mais bëgg a jox Canard enchaîné benn crédibilité yërim naan Canard enchaîné journal bi ko gën a crédible alors que Canard enchaîné dafa ne ab diplomate même Canard enchaîné bi ñuy wax bind danoo jël ay gaañoom tamit wax ji ndeyalewuñ ko seen bopp wax ji ndayale wuñ ko seen bopp mais dañ ko ndayale ab diplomate marocain bu kenn xamul ku mu doon loolu yomb na bu ma neexee ma ni ab journaliste sénégalais nee na ma diw nee na mais ñun xamuñu journaliste bi lan moo nu wër ni yow journaliste bi wax na la dara mais ñun lan moo nu wër ni ab diplomate marocain moo ko wax mais il fallait que ñu indi débat bi jëm ko imposer sénégalais yi. mais malheureusement jàllul le débat c'est pas ça parce que waa Pastef yi daanuwuñu ci seen piège mooy danoo bëggoon jamono yi ñi ŋawti ŋawti lu ne ñu dugg ci loolu nag sama cronique bu mujj wax naa ko mooy ab complot international boo xam ne man dama jàpp ni dañ koy def Ousmane Sonko parce que li jëm ci wàllu financement terrorisme genre xeet yooyu ak li leen di jiiñ ak li ñuy teg ci kaw Ousmane Sonko mooy yooyu tubaab yi pour ñu intervenir ci day jafe te lu bari France lay bàyyeekoo Canard enchaîné France la journal Le Monde France la Jeune Afrique France la France 24 France la RFI euh, France la pour man France moo am problème ak Sénégal am problème ak Ousmane Sonko di ko régler mais France daf fi am ay tubaabam yu ñuul yi nekk ci réew mi di ko defal sale boobu. mais dafa danoo amul ni la Kéba mbay doon wax moo dal waa réew mi réew mi ñëpp tëdd waaye kenn nalawul Sénégal danoo yeewu léegi te di wax du waxi Madiambal wala waxi kii di Cheikh Yérim wala Matar Diop xam ma Matar Diop teel xam ma Matar guddi je on ne plus mooy tax ñoom ñu mën a téye ci yu mel ni parce que lu tax ñu mën a weddi yi daa am yu ñu waxoon bu njëkk mu mujj ci ay kàcc mbiri Adji Sarr mbiri leneen ak leneen leneen jëm ci Ousmane Sonko xam lu leen metti te ba tey jii mënuñu ko baal Ousmane Sonko mooy Ousmane Sonko dafa défier la classe politique sénégalaise te defi boobu kenn relevé relevé wu ko ci réew mi mooy taxaw ni sama loxo dafa set wicc 15 ans impôt et domaine du dërëm bu ne maa ko jël ay homme d'affaires sénégalais ñëw wax déggoon na li fi mag yu fay waxoon déggoon na li fi sëriñ bubu waxoon homme d'affaires sénégalais ñëw wax. fi ñu jaar ak waa ji ci wàllu woowu mooy waa ji ah ñun de xamaluñ ko leneen waaye li ñuy seede ci moom ak li waxal boppam du dërëm bu ne moo ko sàcc te yoru fi ay milliards nag jëm élection élection bu mu mës a dem danaan sénégalais yi jug leen ku am ñaar dërëm na indi ku am 1000 francs na indi gars yi cotisé mu dem élection loolu lañ fi gisagum ku mën a dajale juróom ñaari milliards pour Falla Fleur mun a dajale quarantaine de millions pour capitaine Touré mais kooku boo dajalee ay milliards pour Ousmane Sonko jaadu na parce que ñooñu ñëpp seen million yooyu ci barke Ousmane Sonko lañ ko amee Falla Fleur fu mën a dajalee 7 milliards ñu dimbalee ko ko ci cagnotte waaye waaye Ousmane Sonko 7 millions Ousmane Sonko war na fa mën am 7 milliards ndax bu ko Falla amee barke Ousmane Sonko la bu keneen amee ci barke Ousmane Sonko la kon loolu il faut que ñu dimbaluñu ci lii nag tàmbaliwul tey. am na fi jamono Pastef def cagnotte kañot bi bari loolu xaalis Antoine Diop jug guddi samedi week-end non non du nangu financement lii du nangu lii part bi fi lii dinañ ko tas tasu parti Pastef foofu lañ ko njëkk a waxee looloo tax bu naan Pastef événement yi fi amoon moo tax ñu tas ko ay li jëm ci non. avant événement yi mës nañu artu Pastef ci lool ci xaalis bu nu wanee dañ koy dajale Antoine génn def communiqué wax parce que Macky Sall nag day politiquer xaalis moo tax mu ragal opposant bu am xaalis parce que Guy Marius Sagna daf fi wër Europe ci barki Ousmane Sonko ñëw indaal millions yu bari élection yi ñu jëm waa Pastef diaspora yëkkati alal ju dul jeex di ko cotiser pour jàppale ko ñi di patriote yi pour élection présidentielle yi ñu jëm élection présidentielle yu ñu jëm ñu gis ci parrainage yi nit ñi di parrainer di joxe àddiya Ousmane Sonko <laughs> gars yi ne mais ñii tas nañu seen parti tëj nañ seen waa ji mais ñii coow li ñu am ci réew mi ak bayre bi ñu am ci réew mi ñii bis bu nu fi dajalee xaalis élection balaa mi di ñu gagné ko parce que élection présidentielle tamit xaalis da cee baax xaalis da cee baax te xam na ni ban tëjee mouvement kàcci kàcci moo fi doon lijjanti xaalis ñoom Ousmane Diagne mu xëy jàpp leen ci kaso bi ñu ñu génnee leen réew mi. ñu gis Kopar Express tas nañ ko jàpp ña ko jiite woon ñoom Hannibal dugal ci kaso bi ñu jàppoon ni waa Pastef dañuy dañee wala ñu fande wala ñu gobar jaas yi wala ñuy wër di yalwaan ba léegi mooy nekk fii. parti politique boo xam ne say ndaw yi ci kaso bi yi ci kaso bi ñu jàpp leen ñii yaa leen di faj waaye ñii yaa leen yoral seen dund ci biir kaso bi kon alalu Pastef du alalu bayti maan maanaam alal ji sénégalais yi di dajale di ko def ci Pastef Pastef da koy jëlaat delloowaat ko xale mi ci kaso bi di leen ko faje ak di leen ko dimbalee alal jooj du alalu bayti maan bari le barkeel lee ko gën alal jooj am na barke ndax bu leen neexoon dugal ko ci ay compte di xaar leneen ak leneen waaye ku yoolu yàlla gëm ko doo ragal lii xew ëllëg léegi nag alal jooju war a dem ci élection yi pour man sama xalaat moo tax ñu indi coow lii pour que buñ demee ci élection yi ñu ne Pastef warul génnee xaalis wala bu génnee xaalis ñu ne alal jala alal jala ca douze milliards yi la bokk jingal nga nan ji nga buñ demee ba Pastef am candidat nan sóoraale coow li ñëwaat parce que am na lu ñuy waajal pour man sama xalaat loolu nag sama xalaat la parce que en deux mille dix neuf dafa am coow li fi amoon Sénégal danoo gaaw a fàtte de dafa am benn jamono benn waa ji bokkoon ci mouvance présidentielle bi bu ma juumul ci ci waa Ziguinchor yi la bokk waa ji mu ne dafa am alal joo xam ne mu nga jógee Guinée Bissau ñu ngi ko jaaral la ci yoonu suuf bi ngir mën ko. indil waa Pastef ak Ousmane Sonko en 2019 wax jooju amoon na fi mais dañ ko dóor dóoraat doxul ñu génn ci ñu ne alal joo xam ne la ci suuf la jaar pour dugg ci campagne Pastef en 2019 wax jooju boo leen fàttali am na ku fi waxoon damay bañ a jum yi te bëgguma tooñ mais am na benn responsable bu ko waxoon looloo tax nag wax ji yëpp di dajjeeku mu dool rek chronique d'un mensonge organisé loolu nag yàlla mooy ki ko dogal mënuñ ci dara jéem nañ lu ne ci Pastef tas nañ parti ba jàpp na responsable tëj nañ Ousmane Sonko mais ba tey jii mi ngi fi loolu nag mbiri sunu boroom la mbiri sunu boroom la looloo tax rafet si moo gën ñaaw ci mu doonoon rek li ñuy indi ci ceewal milliards yi ñuy wax mooy bu leen leere ni li ñuy wax dëgg la nan porte plainte nan porter plainte buñ porter plainte ba pare nan wax alal jooju anamu ak kan moo ko joxe parce que buñ nee. jox noonu Ousmane Sonko nan wax kan moo ko jox ak ci yenn anam la nga ko jox ak ana alal ji parce que li lay wan ñi duñu mën tappale ñu ne am na jamono Ousmane Sonko war a jaar ci corniche bi <laughs> ay nit war ko kar mooy jour bi ko takk deri jàppee toj vitre otom yóbbu ñoom ñu ne boo gisee ñu ko doon sauvé daa am ñu ko doon kar kar xam na ñoom dañuy wax bu dugal seen bopp daa am ñu doon kar Ousmane Sonko pour lii parce que seen alal jooj mu yor loolu lañ bëgg sax mu jox leen ko te ñooñu ñoo tax Ousmane Sonko amatul sécurité mais ki wax wax jooju mais dañ ko war a woo wax ko ñooñ ñan ak fan lañ jaar ba dugg ci réew mi ak lan la moo leen may taxaw ci corniche bi di xaar Ousmane Sonko mais ñooñ bu dee dañuy ay band yi seq loolu Ousmane Sonko mais ñooñ waruñu leen woon jàpp mais ba tey ji gisuñu ñooñu ñun dégguñu leen xamuñu fuñ jaar kon réew mi nit mën na fi dugg ñëw di régler ay comptam ñun ré suñ réew mi ñu ne ñun suñ réew dafa am sécurité ñun ñun ñoo ko wax ñu ne génne nañ ay alal yu bari pour xeex terrorisme ay nit mën a jóge fee ñëw di régler seen compte ak Ousmane Sonko mii gars yi xam ñooñu ñooy ñeen ba tey jii jàpp ñu leen te wan ñu gars yooyu jamono jooj ay junni ndaw ñu ngi ci kaso bi <laughs> gars yi bi ñuy waxati na ñuy waxtaan ba déggoo doog a ñëw toog di wax ah imaginer wax jooju kon wax jooju tey jii ki wax wax ji war nañ ko woo mu wax ñu wax ji fan la jóge ak ñooñu ñooy ñen loolu lu jara leeral la li jëm tamit ci mbir alal ji ñuy wax buñ ci waxee ba pare lu wolof fi naan ku wax lii wax la ca des candidat yi Ousmane Sonko rek bokk ci de candidat yi Ousmane rek bokk ci waa mouvance présidentielle alal ji ñuy campagne nan wax fa la jóge jan alal la ak seen candidat bi fa la jëlee milliard nan nu ko wax ah nan wax fa la jëlee milliard xam na dégg nañ ko ma jàmbal kii nu mu tudd dama Cheikh Yérim def kàddu yi tappale kàddu yi da koy dégg da ngaa ay eh, mu ne non du nangu ku jël alal réew mi di ko campagne boobu mi ngi ñuy waajal boobu mi ngi defaral Amadou Ba non waa Benno bu nu bëggee dem élection nan xam ne ñoom xola danoo war a lii mais jël alal réew mi di ko campagne man du ma ci nangu te du ma ànd ku koy def parce que jaarul alal réew mi ñëpp ko bokk loolu am na ku muy ràccal ci wàll woowu jàpp ni moom dañuy na xam ma jàmba kii la gaalaa Cheikh Yérim bu dee wax moom day jàpp moo ñu gën muus gën ñu intelligent gën a kii te xamul ni moom famille billaahi famille naanee ndaa la muy naanee ñun ci lay fanaanee mun mënuñu nax na na ut beneen système beneen style mais style bi mu daan gaay gaay léegi ni ñoo yow léegi ay Cheikh Bara ñoo fi ne ay Pape Alé ay boy TikTok yi bu du gaay yi muus léegi tey jii am na ñu fi taxaw tey jii di wax bu dee ñoom danoo transparent lu tax jamono ñu leen woon def leen trans lii ni mu tudd déclaration de patrimoine ñu bañ du ma tudd tur ma am na Nafi ngoom waxoon na ko fi ne am na ay kilifa yu nekk fii ñu dénk leen àll réew mi ban ne déclaration de patrimoine ba léegi mun ñu wax seen patrimoine ñaata la ku bëgg la leer bëgg a yor réew mi di di nga bañ déclaration de patrimoine hmm? di nga bañ déclaration de patrimoine ñu lay jiñ ay milliards nga yor kër gu kenn yorul yor lu kenn yorul te tey ji fu ne déclaration de patrimoine nga bañ nga bëgg ne yow da nga ñuy jiite ñu bëgg bi nekk naan yenn yeneen Ousmane Sonko bokkatul ku bokkatul ma may leen ko jàmm yeneen bokkatul yéen a ko wax may ko jàmm Ousmane Sonko ci programme ak waxam dafa mës a wax moom ne bu falaw de rek négocier les contrats ndax contrat pétrolier yi contrat pétrole bii ak zircon yeeg ñoomi seen Sénégal amu ci dara ay di pour cent la Sénégal di am bis bu ma faloo dinaa fexe mu doon gagnant gagnant cinquante cinquante cinquante Sénégal di mos yeneen réew yi di mos mais xoolaat contrat yooyu mais ban candidat moo ko waxul Ousmane Sonko ñoo porté le projet wax ni ñun suñu réew am nañu lépp am nañu zircon am nañu pétrole am nañu gaz am nañu or am nañu lépp mais lépp day génn di dem maanaam ñun danoo toog ci or ba pare di wër or mu ne nag or boobu dinaa fexe ba Sénégal bis bu ma jëlee réew mi. Sénégal am ci wàllam ñi mu ko séqal am seen wàll loolu mooy ay dil loolee lan mais loolu ku ko wax ñu ànd ak yow ndax mënuñu am géej ñu jaay sunu géej gi ba tax gale yi xale yi di mbëkk gaal loo yi di dem nga dem tey jii ci Sénégal oriental Tambacounda gi dem côté Kédougou gii ñoom ñu dijju ci or ba pare gën a ndóol ci Sénégal nga dugg ci àllu Casamance bii dafay meññ kenn xamul nu mu toll zircon baa nga fa kenn gisu ko nga dem ci zone yi mel na joogo dem ci waalo bi la fa nekk kenn xamul mu doon ay doxandeem ñëw fa jënd suuf sa nangu suuf sa askan way tumuranke looloy dëgg waxuma la Ousmane Sonko mais képp ku falu ci réew mi ci loolu nga war a taxaw ba ñun suñu alal jii ak sunu gànjar gi ci réew mi ñu jotaat ci waxuñu nag waa bitim réew duñ ci am mais ñu def ko cinquante cinquante bu boobaa réew mi neex walla tooy ñu naan day négocier ak ma Samba ak ma ba mais bu dee négociation yooyu day amal njariñ Sénégal na ko gars yi négocier ñu gis ñun tun alal loolu lay wër ah. kon mbir moomu foofu lañ ci yem pour daaneel nag dafa am benn mbir mu am mooy Macky Sall mi affiché wu ak ay saagakat mais loolu garaawul ci moom moom euh, saagakat bi na jóge Pastef rek parce que ku mën a dalal Jibril Ngom Jibril Ngom dañ kaa jiñ sàcc di ko wër di ko di wër sàcc di wër sàcc ba fekk ko ci présidence mu taxaw maanaam sàcc bi ñuy dàq ba fekk ko présidence mu taxaw Sénégal la am keneen di kalifon la même chose kon lii bu amee bu mu bett kenn loolu nag li koy indi rek mooy dëggal ni. Macky Sall dafa am problème ak sénégalais yi rawatina sénégalais yi gën ci sénégalais yi dafa am problème ak ñoom ma Macky Sall du rek sonk la amal problème ñàkk a jubóog ndaw ñi moo tax ndaw ñi gedd réew mi ba jàpp ni Sénégal du réew ñu bàyyi ko fi dem presse bi ñuy wax ñàkk a jubóog ñoom moo tax mu dem ba toog ci mbooloo naan ñi toog ci télé yi di feñ ñi toog ci rajo yi di fen ak internet bi kon du sonk la amul problème moom

lu tax mënuñu xajoo ak Macky Sall lu tax mënuñu dégg président Macky Sall ba tax moom bu gisee ab xale boo xam ne daan na ko saaga démb bu ko xale bi joxe loxo na ko Ousmane Sonko la àndaloon mu mën koo uf ànd ak moom photo wu montre que ñi gën ci Sénégalais yi est-ce que mën na leen am loolu lu ñuy jàngat la. looloo tax waa ji femme bi mu affiché keneen ak keneen jamono boobu nag naafeq yi ci réew mi naan. non moom dafa am tolérance dafa mën a baale lo na xale yi ci kaso bi li ko Kaliphone wax xale yi ci kaso bii nii waxuñu ko li ko xale bu jigéen boobu wax waxuñu ko pourtant xale yi ñu ngi ci kaso bi ñu téye pour ay yu ndaw wala ay tuuma yoo xam ne tey ji ba tey preuve amu ci bu Jóob Tayif moo ci mujj bi mu demee dañ ko bàyyi mu ñibbi na ko defoo dara bari na ci xale yi nekk ci kaso bi mel noonu ñun li ñuy xaar mooy bu dee da ngaa mën a baale rek baale ñu ci kaso bi kenn ñun waxuñu la nga jàpp saaga ka rek wala nga koy dóor wala ngay photo ak moom kërëb kërëb mais li ñuy xaar ci président de la république mooy mu doon le père de la nation jur ñëpp xajoo ñëpp ànd ak ñëpp mën leen a muñal may dell ci kàddu yi sëñ Fallou rek mooy euh, ay nit boo leen jiitee te mu ne leen muñal seen bang-bang mutoo leen kilifa nit ñi boo leen jiitee da nga leen di tane waaw ah, bañ ci gestu ay détails bañ di xool ku la saaga ku la bañ ku la bëgg parce que un président amatul droit di am noonu ci réewam maanaam kii moo ma bañ kii moo ma bëgg noo mi ngi mel ne sa njaboot sa njaboot doom joo gën a bëgg sa jaru nga koy wane ndaxte doom ji lay jariñ ëllëg xamoo ko kon doom joo jur rek ufal kon mu doonoon rek waxtaan wi tey di gërëm ñëpp di leen sant di gërëm El moo Modou di jégalu ñëpp nag ah di jégalu ñëpp di balu àq ñëpp. Euh, di nuyu baax fàllu ah di gërëm ñëpp di leen sant di ñaanal ñëpp jàmm ma nga may ma nag euh, moo gërëm booy bi ma solal tey ji papi papi kos ah mi ngi ci liberté si extension waaw booy maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant ah mën ngeen ko woo ci 77 386 76 03 ah ñoom ñooy jàpp ci combat bi xam na rafle jigul ndaanaan te télé te <laughs> télé yombul chaque jour nga feeñ looloo tax ñu ngi leen di gërëm bu baax papi kos euh, Pape Momar Gueye ñu koy jaajëfal bu baax moom sama doom la papam Omar Gueye la tudd kon euh, maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant di wax ni rek gars yi costume yaa nga fa lépp a ngi fa ah ak costume africain yi di ñaanal ñëpp jàmm kon ba beneen yoon incha allah